aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billahi azim mbokki jullit yi mbokki Sénégal maa ngi leen bu baax di leen baalu àq di jël ñu nuyoo di ko jiital Serigne Mountakha xalif Serigne Touba yàlla yàggal ko fi bëggoon am lu ma wax tuuti ci li xew Touba gi manifestation boo xam ne Mbàkke la am Serigne Cheikh Thioro ibnu sëñ Allaaji ibnu sëñ Cheikh Thioro ibnu sëñ Cheikh sa Mbacke di doomu dëkk bi di ab taalibe bi comme ñëpp ay manifestation am ci biir Mbacke ñu bëgg kaa jël teg ko ci Cheikh Thioro moo génn xale yi mais nit ñi lan moo tax ñu naafeq hypocrite mais manifestation bi bu amee grâce à Macky Sall moo jël constitution boo xamante ni ba mu juddoo da ko fee fekk buy dee da ko fi bàyyi mu touché ko am droit def ñaari mandat ñu war a organiser ay élection ba mu des dix heures de temps nga taxaw ne ay élection du am nga def say tappale ne dangay ngay def dañ lay yokkal dix mois Sénégal gépp génn ba ñett nit dee ci bu manifestation amee Ousmane Sonko nga comme manuel tëdd ñu tëj ko fa nit ñi génn ñu ne waa kër Ousmane Sonko la sëñ Cheikh Thioro man bu noon manifesté wu ci biir Touba maay njëkk a dal ci kawam du ci ànd ak moom mais lan moo tax sëñ seex Thioro ngeen bëgg kaa jël jaxase ka ak sëñ Mountakha te xam ngeen ne loolu du dëgg sëñ Cheikh Thioro da kaa gën nekk ci da kaa gën a bokk ci dëkk bi da ngeen kaa gën a nekk sëriñ sët sëñ Touba maamam Mamour Anta Sali maamam maamam di di doomi Mamour Anta Sali di doomu dëkk bi am ku jëlub audio nañ yàq kër seex Thioro te kooku di wax ne nañ yàq kër Cheikh Thioro gënul Cheikh Thioro nday gënu ko bàyyi ndax ñooñu ay tappale ak i sàcc lañ nekk ci dëkk bi lan moo tax yow manifestation su amee rek ñu ne waa kër Ousmane Sonko la Sénégal ñoo jug manifestation yi su amee grâce à Macky moo génne la waa Sénégal moo fekk loo xam ne ñépp a ko bokk mu laal ko kenn waxu ci benn kilifa génnewul def vidéo dal ci kaw Macky Sall Cheikh doomu dëkk bi la gën leen kaa bokk ci dëkk bi gën leen kaa nekkub taalibe waaw kooku di wax nag ne da nañ yàq këram kooku ñépp xam nañ ne dafa am benn dossier bu ko épinglé waaw dafa am benn porte boo xam ne dafa nekk ci dëkk bi bañ Ousmane Sonko bañ sëñ Cheikh Thioro bañ njabootu Ousmane Sonko di comploter ne Ousmane Sonko du nekk président di jàppale Macky Sall fii ñëpp gis nañ ne Sonko danaan dem këram mu koy tëju lan moo tax man lan moo tax dëkk bi duñu wax dëgg mais lan moo tax xam nga man li ma jaaxal man dëkk bi lan moo tax daaw fii Daaru Xudóos mbaarum Daaru Xudóos mii ci koor ki waa APR yi fa lañ def seen conférence boo xam si dañ doon meeting ñëpp di ko dégg te euh, Daaru Xuddoos ak kër Sëñ Tuubaa gi ak ak jumaay Sëñ tubaa gi matu 500 mètres wala 1 kilomètre déggoo ko ci wax dara mais bu manifestation amee ñu jóge Mbàkke duggu tubaa ñu ne waa kër Ousmane Sonko la lu tax dëkk bi duñ wax dëgg ah lan moo tax dëkk bi duñ wax dëgg xam nga dëkk bi lan lañ war a njëkk a xeex mooy hôpitalu Cheikh Ahmadou Bamba bii nga xam ne 7 milliards ñoo xam ne dañoo yor santu dëkk bi séddoo 7 milliards ku nekk am 1 milliard loo xam ne xaalis Sénégal la benn sëriñ financé ko état moo ko seen moo ko financé pour ñu defaloon ci hôpital Cheikh Ahmadou Bamba bi hôpital bi taxaw na ay at lan moo tax xaalis boobu mënuñoo fexe ba mu duggaat ci biir dëkk bi Touba yi nga xam ne daa ña ñàkkum ndox assainissement am ci am am ñu am problème assainissement lan moo tax euh, sept milliards yooyu mënuñu kaa jëlaat dugalaat ko ci dëkk bi loolu loolu lañ war a xeex mais mbir mi du mbir bi fan manifestation dañoo war a xeex liy dugg Touba muy dugg ci dëkk bi ñëpp bokk ci yam yow dëkk bi mën nañoo am Serigne Touba ànd ak ay rakkam di liggéey ba mu toll fii ak seexi Sëñ Touba yi donc li ànd ak Sëñ Touba di liggéey ba mu toll fii bu ab taalibe bi jógee wax war a wax dara ñu ne duñ ko wax Cheikh gën leen kaa bokk ci dëkk bi am na droit député la am na droit gis lu ko naqari mu dem ca biir Mbàkke manifesté wu woowul kenn ne nañ manifesté wu kenn du la génneel vidéo ne la sëñ Cheikh Thioro dana la manifesté wu kenn du la génneel benn vidéo boo xamante si nii dañ ne la dafa nekk ci biir dëkk bi di manifesté wu waaw porte bi nekk fii nag ci dëkk bi ne Ousmane Sonko du nekk président ak waa këram loolu day sonn mais yàlla lu mu namm kenn mënu ci dara nit ñi nañ wax Macky Sall dëgg na organiser ay élection nit ñi dem élection ku sénégalais tànn ñu xam ne loolu la wasalaamaaleykum wa rahmatullah